bu de de l'arène avec parce que ak euh, abnégation ak euh, ñafem parce que c'est pour la première fois nous euh, le roi des arènes bu am taille bu toll am poids bu Nous avons loolu may donc nous féliciter au nom de tous les Parcellois nous féliciter au nom de tous les sportifs du Sénégal de féliciter aussi encadrement technique bi nga xamné ñom ñoko yor depuis bimu commencé bëre ba légui de féliciter administration bi nga xamné bima jëlé ma équipe bi légui yagul mëna né sax xama lo fondé bo demee ba jël président bi dara ëmp la ci waaw mais nak dama ci sant yalla nek na roi des arènes ñëwaat mu nek euh, maire lutteur ñëwaat tamit Moussa Sy le maire moo koy féliciter mu jox ñu ben terrain bu mag défar ko ba mu baax pour ñu fa entraîner ci biir Dakarou yoy yëp ay sant la di ko ñaanal lii rek mu yàgg ci mu continuer ba titre roi des arènes bi ràpp ci moom. titre roi des arènes ci moom te am ay prétendant ñu ngi coow combat Ama Baldé muy combat bu war a ñor Rock parce que moo bëri nag ay magam bëri ak ay moromam war bëri ak ay rakkam tey blocus bi di problème mu caché. waaw combat bi ñoom ñaar dañu war a bëre Modou ak Ama ñoom ñëpp ay champion lañ euh, dañu war a bëri am xaalis Modou. làmb mooy métier Ama aussi suñu frère la làmb mooy métier il dañ a yéene tamit lu Modou am ci làmb rek ci wàllu wërsëg mu am ko parce que tamit bu Modou amul ay adversaire du bëre te moom adversaire prétendant la mais li may lancé problème bi rek du promoteur problème bi c'est les sponsors ñuy lance appel le président Macky Sall ñi nga xam ne tey jii ñoo bokk parti bokk coalition mu jàppale delluwaat gën a jàppale làmb mu lancé appel sponsors yi ñëwaat man loolu laa koy lancé. est dal ci Ama Baldé est-ce que donc euh, le couronne n'est pas xam nga koo mënti bëreel le couronne est en te Ama yaakaar naa ne bëgg na bëreeg Modou te ñu waaw te ñu nit bañuñu ko bëre woon nañu mbappat bi doon gone ñoom ñoo bokk benn maas la benn maas la bëre woon nañ mbapat Modou daan ko dañu war a bërewaat ñu ngi koy wax rek yàlla na combat bi taxaw bu taxawee yàlla nañu yàlla may ndam loolu rek lañ ci ñaan yàlla. Modou wóolu nga sa waay mi ngi entraîné parce que nee naa ni forme bi mu yor sax yoru koon bi muy bëre man loolu laa ko wax keroog gis naa ko mi ngi entraîné bu baax a baax a baax te te waaw te làmb nag lu ci waay mën a wax rek entraînement la parce que téere yi ngay wuteeg yooyu yëpp bu kurpe ñu takkee nga dag ko sànni donc nag nañu entraîné ñu xaar ba le jour ji ñaan yàlla tamit promoteur yi am xaalis bu ñu ko tëggee ci kàttanu yàlla